donc comme ni ma ko doon waxee tout à tey c'est vendredi on va parler un peu d'art et de culture pour loolu dañuy dalal <clears throat> suñu invité di Serigne Mansour euh, Diagne nekk euh, acteur Willem bàyyi la nga dalal ko ñu tàmbale suñu waxtaan tey bien sûr euh, Fatou tey ñu ngi dalal kii di Serigne Mansour Diagne yaa ngi koy wax nekk mm-hmm. acteur Serigne Mansour ñu ngi lay wax bienvenue suñu plateau suñu matinal asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi nekk ci plateau bi maa ngi nuyu w suñu label du di nuyu sama yaay di nuyu suñu waa koñ ñëpp ñoo xamante ne instant yi actuellement nag ñoom ñu ngi seetaan nag. ah en direct ah ñu ngi seetaan de <laughs> maa ngi nuyu ñëpp. waaw ah, kon ñu tamit ñu ngi leen di nuyuwaale ah. waaw <laughs> de passage on va dire oui ah. gis nga donc euh, aujourd'hui ñu lay présenté en tant que acteur. nga ñu mm-hmm. joué quand même si biir euh, Sénégalais laa la wax si wàllum série wala yeneen sax. Mm-hmm. yow aujourd'hui en tant que acteur naka nga gisee milieu boobu nga xam ne Sénégal ñenn ñi jàpp ne mu ngi évoluer quand ah milieu cinéma tamit euh, jamono bi ñu toll nii soo xoolee ba xool xam ni mu ñu évolué carrément dëgg yàlla. léegi pourquoi nga tànn nekk acteur. pourquoi ma tànn nekk acteur. waaw lu tax mu nekk acteur parce que virus bu nekk ci man la quoi man temps yi ma doon jàngi école temps yi ma doon def CMPA euh, 18 gars yi suñu suñu kii bi nu mu tudd suñu directeur bi dañ doon def. comme genre affaire Fosco genre fête yooyu noonu xam nga ba ñëpp di ma laaj ñu ma kan mooy def théâtre beeg yooyu noonu kenn du seen loxo <laughs> man nag am fit ba dee ñëw di sama loxo ma leen no maa koy gérer def ko ba affaire bi réussir ba yeneen école tamit ñu bëri ñaamal noonu saa suñ def Fosco yow la ñuy jël pour nga encadré wu ñu affaire bu dem ba def virus ba nekk ci man quoi léegi nag ci laa demee benn jour te seen teg saay muy Mahfouz xam nga di ànd ak moom di ànd moom di ànd ak moom ba yàlla def li muy def nii tey quoi. <laughs> yow ci yan série nga nga jot a joué. waay de famille maa ngi ci Gouloir maa ngi ci Baaxfem mooy Baaxfem laa njëkk a ci waa Yes Dakar di nuyu di nuyuwaale Jibi Gueye PDG que su ma demee ba bokk ci ay série moom moo tax. Hmm. moom moom moom mooy fit quoi moom ci boppam moom mooy fit. ci yooyu nga joué yan nga jàpp ni peut-être ci nga gën a joué ce ci nga gën a excellé. ci euh, ci rôle yi ñu la jot a jox euh, ci nga gën a sentir sa sa bopp. waaw ah, mooy rôle bu mooy joué secret de famille rek <laughs> ba léegi nii gars yi may laaj fal secret de famille ba léegi fa la fa la tool. waaw parce que série bi ñu ko bëgg ñoo bari ak ñu sama sama histoire ak ku jigéen gi ñu bari nañu laaj fa la yem yooyu noonu mais. xam naa jibi géey moom dinañ si ñëwaat incha allah. <laughs> léegi ci secret de famille boobu mu ngi lay wax rôle bi mu joué de waaye ba tey jii waxu la <laughs> waxu la lan la def ci biir ci biir secret de famille. waaw daa daal di jël ki nga xamante ni ñëpp maanaam koñ bi ñëpp ko ko respecté muy imaamu koñ bi ñëpp ko rus maanaam kenn du si xool ko mu dem doxaan doomu imaam fi <laughs> nan nan nga dundee loolu. waaw lu ma dundee foofu noonu parce que ñu bëri sax. surtout imam nekk sax suñu koñ. daf may laaj mu ma lu nga joué nii yeete la quoi parce que man ñu bëri ñoo tegoon ni man sama rôle foofu damay yàqu doomu imam beeg yooyu noonu may yàquma foofu doomu imam c'est juste am lu ñu doon jàngale foofu ak doomu imam bi ba xam ndax moom am na ñoom dañuy jàpp ñu bëri dañuy jàpp ni doomu imam imam genre yooyu noonu ko amee histoire bi dafa xot foofu secret de famille maanaam secret bu nekk moo fay génn xam nga affaire bi ci continué woon ñu bëri dinañ xam secret bi. mais comme que ji bi da ko am fu mu ko am foofu la ko yemale xam naa ni bientôt incha allah dina ñëwaat. et euh, justement ci côté boobu laa bëggoon ñëw sax mhm. est-ce que yéen tey boo leen di seen série wala seen film yi day fekk scénario bi pare lépp pare nga xam ne ngeen di jouer lépp épisode yëpp ngeen doo commencer publier diffuser du moins ou bien da di diffuser di jouer di jouer di diffuser et par séquence. waaw man day wax dëgg yàlla mu lu ñu jouer secret de moom scénario lépp pare na. comme boog exemple bu fekkee suba da ngay tourné wala ginnaaw suba ngay tourné nga jàng ko léegi nag soo tourné télé bi di teg en même temps même pas une heure de temps su lañ koy dugal ci YouTube bi quoi. Hmm. waaw ci ci jour bi ñaata tournage ngeen di ngeen di mën a ci jour bi li ñu am bari na de. yenn saa yi da ngay comme boog journée bi nii di nga tourné séquences wala 4 séquences. te day am ay répétitions et tout. pas répétition. comme des fois mën ngeen tourner benn épisode ngeen reprendre ko. waaw loolu am na. loolu ñu bëri lay dal. day gis ñoo xam ne dañuy financé ci benn benn séquence boo xam financé xaalis bu bëri ci benn séquence ñi dem bi ci biir ñu effacé lépp ñëw reprendre waat et justement même aujourd'hui euh, ñu bëgg a nekk acteur euh, actrice mais tamit dañu war a ba euh, bëggoon wax ne am na ñu naan métier bi yombul parce que devant la caméra ñu lay joué loo yenn scènes yi ñëpp di la tiim nga ko joué dégager benn émotion bu nekk la ressentir est-ce que c'est c'est difficile quand même envoyer ces sensations là ou bien on va dire c'est inné avec la formation nga koy jàngale. Ah, yombul de nekk acteur wala nekk actrice yombul de. parce que acteur soo ko bëggee nekk di nga dem toll benn moment boo xamante faaw nga dem jàngi di nga toll benn moment boo xam faaw nga dem jàngi parce que man bu may jouer secret de famille boobu mooy sama première fois may jouer secret de famille ci série mais après moo demee bi ci biir xam dama dem jàngiwaat ku mel ni Babacar Wale mi Serif Mal lu bëri saa su may tourné ba pare moom laa koy envoyé moo doon teg si yoon mi ma defal li parce que moom ma si néeg bi nit bu moo la wan mën a wax ni ngay toogee après da ngay dem daf ay jeux d'acteur ay atelier xam nga mën a jàng mais da nga gis jeune jeune yu bëri yoo xam ne dañuy gis ni kii feeñ na tale wala je ne sais pas affaire yooyu noonu ñoo ne ñu ngi dugg ci milieu cinéma. li loo leen yooyu bëgg dugg ci milieu cinéma yow boo amoon conseil boo leen di jox loo di wax. ah man ni ma bëgg ñu jeunes yi la laa leen di conseil mais maanaam milieu cinéma soo si bëggee dugg da ngay dem laaj ci ñoo xamante ne ñoo la jiitu si nekk nga leen affaire bi nan la demee réalité bi lii ak lii lii ñu teg la ci code mais da gis ñoo xamante ne dañu am profil bi. mais seen jeune d'acteur dafay des dangay gis ñoo xam ne amuñu profil bi mais am nañ jeune d'acteur bi mais maanaam loolu ci ñoom lay nekk comprendre mais nga gën koo jàng ñi gën la xamal ni affaire bi nii lay doxee pour nga mën a comprendre quoi loolu mooy yoon que jamono bi ñu toll nii dafa doy waar xam lu tax ma la mu doy waar parce que ñu bëri bës bi la hmm. ñu topp ñu bëri bës bi la ñu topp maanaam kii feeñ na télé léegi siiw na léegi xam nga dugg si balaa ngay dugg si dara faa nga xam la mooy conséquences yi si nekk mooy maanaam dafa am nga dem jàngi sa docteur waaw. alors vas-y vas-y <laughs> alors lay ñëw est-ce que durant carrière bi nga xam ne jot nga koo def am na ci euh, rôle boo xam ne jox nañ la ko te mënoo ko def. rôle boo xamante jox nañ ma ko mën ma ko def mooy euh, am na rôle bi ma joxoon mooy bu may joué ak waa ju baax mooy baax fem mooy bu ma nekk ci Jakarta beeg yooyu noonu boobu boobu nag mooy sama premier mooy joué esquisse. foofu la ma jibi PDG Yes Dakar maa koy nuyu tamit xam naa moom dina seetaan affaire bi parce que moom nit ku baax la quoi jàppale na ma ci cadre boobu noonu lu bari. première fois bu ma ñëwee ñuy tourné xam na nañu role bi nii man du sama du sama kii quoi mais dama ko dama koo forcé moom moo ma forcé role bi mi ma li koy joué. faaw parce que sa profil lañ ci gis faaw nga joué ko ak ah, bi ñu demee bi ci biir toog naa lu yàgg yàgg moom mu woo ma mi ma. dama la bëggoon jël si benn série boo xamante ne secret de famille pour nga jouer si ma ne ko waaw ok am problème moom nag bi ñu bi si biit ñuy jouer si la moom mayee fit ma ma nekk si parce que am nga profil bi waaw léegi soo mën a rôle bi da ngay da ngay amélioré wu dañ koy jox keneen wala da ciy def li nga li nga mën comment ça se passe en fait wala acteur bi rôle bu ñu ko war a jox rek war na koo mën a def. ah acteur moom wax dëgg yàlla na maam rôle bi la jox moom mën nga ko def bu fekkee acteur acteur nga. rôle bu la jox mun nga ko def. des fois des fois dina la jox yenn rôle yi nga bañ ko peut-être pour préserver sa dignité wala sa personnalité et waaw man moom wax dëgg yàlla man am na yenn rôle yoo xam ma ko joxee dëgg yàlla man nii rek <laughs> waaw. waaw mais acteur bi rôle bi loolu personnage la bokkul peut ak moom li nga xamante ni moom la doon. waaw ñun moom bañuñu dara quoi acteur. xam nga soo demee ba nee acteur nga bëgg a doon rôle bu la mënut jox boo xamante ni sa yaram génnee ko mais am na yenn rôle yoo xam ne su loo ko joxee moom wax dëgg yàlla man moom <laughs> du ma ko joué quoi nangu ma <laughs> justement te foofu la bëgg ñëw parce que dañuy gis ne sax yenn artistes yi que soit peintres yi wala yi et mhm. Mhm. ñoom dañuy naan Sénégal fii nii dañ xaw a tënk c'est-à-dire ñoom dañuy bëgg gën a am liberté pour gën a mën a exprimer seen art mhm. mais euh, suñu culture wala suñu cosaan laa ko mën wax si wolof daf la nga xaw a limité si yenn aspect est-ce que yow tey en tant que acteur da foog ne dañoo war a am liberté bi nga xam ne lépp lu ñu bëgg a war nañ ko mën a jouer mais ou bien dañoo xamal ñu xëy société bi quand même limité la ñuy wane si écran bi. ah wax dëgg yàlla acteur toll nga benn moment boo xamante ne ci wàllu cinéma bi fi ñu toll nii jamono bi ñu toll nii nii nii nii soo xoolee boo xool nga xam ne affaire bi ñu évolué comprendre mm-hmm. parce que da nga société bi société bi la gars yi di wane ko lu gars yi di dund ci société bi la wane loolu faaw nga wane ko yow mi nekk acteur yow faaw mu gi nekk sa yaram nga wane ko loolu mooy yoon am na ñoo xamante ne yi dem bi si biir ñu leen non non man moom lii moom du ma ko joué wala lii ak lii wala genre yooyu nag c' est que li ngay lan la jox noonu mbubb bu nga sol la mooy mbubb boo xam ne da koo sol après soo paree dañ koy teg ko nele soo si paree moom teg ko nele mais bu doo teg nele ba pare nga yónnoo xaama continuer ci mbedd bi di ko di ko ziwaale foofu soo demee bi yàgg doo safati nit ñi. mais mais est-ce que toute réalité vont être reflétées c'est-à-dire est-ce que lépp lu xew ci société bi rek war nañ ko mën a wane ci écran bi ou bien ñu xool quand même des fois nag lañ mm-hmm. na. Mm-hmm. mais peut-être day heurter yenn sensibilité yi. ou mm-hmm. bien ñenn ñi duñ si ànd de la façon nuñ koy diffuser à l'écran yow en tant que acteur la mooy sa point de vue si loolu. waaw man moom dëgg yàlla moom lépp loo xam ne mi ngi ci bi war nañ ko wane. non pas tout sax pas lépp mais am na yenn yoon xam mën nañ ko wane pour nit ñi bàyyi ci xel jàng si parce que jamono bi ñu toll nii dafa doy waar. waaw yeete ko waaw faaw nga yeete nit ñi loo gis séeri nga gis fii ñu bëri dañuy yeete yeete mooy ñu tax a jóg man de wax dëgg yàlla kii war na xam quoi secret de famille ñu ñu bëri instant yi nii ñu bëri dañuy laaj. pourquoi doo leen continuer doo doo leen continuer secret de famille bi. Hmm. saison 1 bi lu tax doo leen ko continuer. day waaw parce que sans dépendre ci Jibi Guèye rek suñu PDG. sans dépendre ci moom parce que série bi ñu bëri ñu ngi koy laaj imaam yi ñoo ko doon seetaan imaam yi maire yi ñu bëri ñu ko doon seetaan parce que série boobu noonu secret par secret la parce que dañ doon yeete foofu noonu série bi dañ doon yeete. loo xamante société bi la c'est normal nga ko génnee wane ko pour nit ñi jëriñu si. Hmm. léegi ñu daal di wax li nga xamante ni mooy euh, comme rôle yi Mahfouz di joué. Hmm. ak moom par exemple ngeen gis benn nit mel ni lu koy jéem a nax tout <laughs> loolu tamit euh, des fois ngeen ngeen tiitee si ay nit ah. waaw ah. <laughs> waaw ah, sama grand Mahfouz maa lay bëggee yow Ousseyn waa équipe Prank Escale ñëpp maa leen di bëggee waaw caméra kese yi nag xam nga nit ñi moom jamono mi ñu toll nii. dañ koo bëgg quoi. jamono bi ñu toll nii instant yii def saison 1 Pankestar instant yii saison 2 bi si lañ nekk nii ñu bëri dañ ñu koy laaj. waaw daa bi si gën a am succès est bi yéen ak homme bébé. homme. <laughs> si mbirum corona bi et tout boobu boobu dafa metti caméra kese boobu non dafa metti parce que lu nekk nga si doon dégg. Hmm. gis nga caméra ñu bëri ñu koy tourné da ngay gis ñoo xamante ne bàkki yàlla mu la fend ay malade. yi tee ni seen portable yi di seetaan caméra kese di ree wóor na yàlla am na ñoom dañuy woo téléphone bëgg naa leen gis parce que lu ngeen def nii dafa dafa neex affaire yooyu noonu mais ñun moom suñu joué caméra kese dañ lay laaj jël jël rek jaamu ñëw dugal te caméra kese ñun lu nekk lañ ciy <laughs> dégg. waaw dañ parce que. ñun moom wax dëgg yàlla moom xam nga rek ay ay ay acteurs lañ quoi. mais est-ce que au pré au ngeen di ñëw laaj nañ ko da koy gis nii rek comme ça au dépourvu daal di nekk euh, voilà commencé caméra cachée bi. non ñu moom caméra kese lañ def ñëwuñu comme boog expliqué nit. Hmm. ñu bëri dañuy tege ne loolu comme prank star ngay gis ay ñoom Jos ay ñoom Viviane ñu bëri dañuy tege ne ñuy ñëw teg affaire non non caméra bi dañuy te eh, eh, saa yi xoolal am na benn moment boo xamante ne Jos bi ñu koy prank. Mm-hmm. toog nañ benn une heure de temps di ko xaar posé nañ caméra yi toog ay une de temps di ko xaar. dangeen ngeen di nekk en complice ak prochain bi. si non non kenn si ñoom. kenn amuñu benn complice boo xamante mooy la. mais maanaam maanaam ñu ngi si yàlla wala kii nii <laughs> ah amuguñu ko <laughs> que ñun dañu ñoo xamante ne mooy maanaam. nekkuñu kese nekku tet bi mooy maanaam ay hmm. Mahfouz wala Zé wala kay dafa am yenn acteurs yoo xamante ni si dañuy jël am nañ ay mère am nañ ay paa. ok waaw ñun noonu la ñuy def. mais ou bien comme man tey ma choisir euh, Alioune Gueye. Mhm. ma contacter la man mii pour nga pranké Alioune Gueye noonu demee ou bien yéenay choisir Alioune Gueye directement. waaw mais maanaam dañuy toog wala Mahfouz toog xool bi si yàgg xool kenn ku xool benn. koo xamante ne mën nañ ko jàpp. Mm. ñu woo ko tel ñu woo ñu woo Mahfouz wala Mahfouz woo woo Zey ñu ah teere kii la bëgg prank comme exemple yow ñu bëgg la prank man xam naa la damay woo ñoom Mahfouz ma leen ah man teere kii laa bëgg prank xam naa fu mu liggéeyee xam naa ban heure lay ñëw xam naa lii léegi nag dañuy dem ci lien bu mu nekk <laughs> samp caméra yooyu yëpp. yow doo xam ndax ñun ñu ngi foofu la nekkuñu fa. léegi sooy ñëwee dañu am keneen koo xamante ne yow xamoo xam musoo ko gis kooku mooy ñëw du waxtaan ak yow léegi foofu lañ lay jaaree nag par léegi histoire da ngeen xalaat wala da <laughs> bi. waaw <laughs> non scénario bi ñu bari ñu ngi laaj scénario bi foo leen koy. kii parce que scénario bi mais Mahfouz ak Zé ñoom ñaar ñooy teg affaire. Euh, maanaam man nag du ma la fen Mahfouz ak Zé nag jàppale nañu ci lu bari su ma demee ba toolu fii nag ñoom la ko quoi. parce que temps yi muy Zé secret de famille. Marcus ak Zé ñoo ma doon teg ci code sama test saa su ñooy ñoo ma defal nii defal nii defal nii ba jamono bi ñu toll nii maa ngi nii am na yenn série yoo xamante sax maa ngi ci waaj a bokk benn série bu mag mu ñu waaj a daw si benn télé boo xamante ni xam naa bientôt rek incha allah quoi comprendre nga mais gis nga caméra kese yi prank lu doy waare yi <laughs> bu ñu seetaan dañuy gis ki ànd ak ku ñuy prank moom il était ou il était déjà au courant. waaw donc seen complice lay doon. à waaw suñu complice lay doon parce que. Euh, soo xoolee ba xool gisoo mooy sànq yeneen ñu wane sax om om bébé bi. gis nga om bébé bi bii nii lu lu lu doy la parce que om bébé bii nii ñu bëri dañuy teg ne dañ ko luñ koo joué dañ koo dañoo hmm. waxtaan ak nit ki wala genre ñu bëri dañuy teg ne loolu. te yàlla xam na c'est réussir. dafa réussir. c'était réel. maanaam dafa réussir. Hmm. parce que lu nekk nga si dundee. wóor na yàlla période bi ngeen ko joué. période bi nga corona beeg yooyu noonu ñu dem ñu bëri dem di ko reprendre ñu bëri nii di ko selin genre yooyu noonu xam nga mais caméra kase yi nag wax dëgg yàlla métti na quoi. <laughs> métti na ñu bëri dañuy tege ne yow yaa ngi ciy jot lu ne wala genre yooyu noonu mais métti na trop. ci loolu sax est-ce que tamit aar bi mu ngi fay. aar bi ndax mi ngi fay. ah mi ngi fay nànk nànk rek mais fayagul bu baax loo xamante yaa ci gis sa bopp de. caméra cachée mi ñu bari nag waaw kay foofu laa bëgg point boobu laa bëgg instant ñu bëri ñu tey ne caméra gars yi ñu ngi ciy jëlee xaalis bu dul jeex wala je ne sais pas mais c'est juste que dañ def cam prank SR yi nga gis ñu yu bëri dañ koy jël pour def ko pour bëggal ci nit ñi. Hmm. en même temps tamit ci biir prank SR yi dañ si doon def affaire su de social. Hmm. affaire de social ñu doon def soo xoolee soo dugg ci seen euh, maxfuus da nga gis social bi ñu doon def Euh, parce que xaalis social bi ñu bëri ñi tane suñu jëlee xaalis social bi ñu dañ ñun ñun ñu nekk si ginnaaw ñu ñoo koy ñu ñoo koy jël pour l'école. du noos waaw du noos. <laughs> te xaalis dañ koy jël dem dimbali ko ñoo xamante ne seen loxo jotu seen ginnaaw parce que bii nii passé rek dañoo jënd plus maanaam lu ñu financé lépp 1 million la lu ñu jox lépp parce que dañoo bind ay ñoom Viviane ñu bëri ñu ñuy jox ñëpp dañoo jël xaalis par xaalis jël reçu yi teg lépp dam bind ay saaku ceeb ay diwlin. dem ci benn lieu boo xamante ne ñoo xamante ne seen loxo jotu seen ginnaaw ñu jox leen ko ñu wane reçu beeg yooyu yëpp parce que c'est normal di mën a dimbali nit ñi waaw. est-ce que tey ci seen pranking mos ngeen pranké kenn mu ne ba ëpp leen doole ngeen obligé arrêté euh, tournage yi. waaw nañu dal ci kii Miss te muy te mu nekkoon ci série mooy wiri bi saa neex te mu en même temps si mu woon impact maa ngi koy nuyu quoi foofu moom parce que dafa demoon ba dafa tiit <laughs> xam damoo ne ba ma tiit mais teewul ni ñu koy calmé ci biir ni muy tiitee noonu quoi parce que ñun moom wax dëgg yàlla ni moom soo ñëwee xam xam nañ ñu def ba doo paniqué yenn ah, paniqué. waaw ngi xool loolu. c'est ça wala est-ce que tamit yéen a ngi xool nit ki mun ngeen ko tiital euh, ñun moom wax dëgg yàlla boobu noonu parce que am na yenn ñoo xam ne ñii reprendre mooy def caméra cassée. Hmm. comprendre nga di tiital yenn nit parce que am naa keroog bu ma doon seetaan am koo xamante ni si gi waaw VDN bi waaw ñu ko tegoon ñun la ñu bëri dañ ko tegoon ñun la te di ñun hmm. ñun saa suñuy def loo xamante ne ñoo teg suñu programme ñu di ñëw di tiital nit au fond di wala def yenn yoo xamante ne mooy loolu. parce que magum jëm di daw waaw magu jëm xeer waaw day daw. Euh, <laughs> loolu moom loolu moom wax dëgg yàlla moom du ñun quoi. Hmm. loolu ñu ngi koy ñaawlu mais du ñun ñun moom lépp lu ñuy def ci yoon lañ koy teg. léegi ci ñi leen di ngeen gisee loolu. waaw ci lu ñuy reprendre c'est normal ñu reprendre fii Sénégal la fii Sénégal la ngeen def dara mu neex nga gis ñëpp ñëw ñu reprendre ñoom dañ ne dañu def caméra kese ak yooyu noonu am ñoo xam ne ñoo fi jiit te ñun moom wax dëgg yàlla concurrencé wuñu kenn ñun ñu ngi def suñu caméra kese ñu ngi def suñu plaque star waaw affaire yaa ngi dem. mais am na ci boo xam ne <laughs> am na ci boo xam ne am xaw na am ay dóorante de est-ce que des fois doo leen ci gaañu yéen tamit biñ def ak. Euh, Aliou Pa Assane Pa Assane ak Aliou Pa Assane moom <laughs> commencé summi. même kii doon xeex euh, comment il s'appelle la Kader Kader mi ànd ak Aliou. waaw waaw waaw waaw. parce que gis nga mooy am na boo xam ne day ñu dafa jos. boobu moom dëgg yàlla <laughs> mais ñun ñooy acteurs yi ñun ñooy jouer affaire xam na ñu ngi koy gérer. Euh, garder seen sens. waaw ñun xam nañ ñun nit ko ak loo mënti ñëwee ñun xam nañ ñu ngi lay gérer. Euh. ak nu ñu mën a def ak yow quoi ba yow loo ñu gaañ ak loo ti wax ak loo mun mënti def xam nañ ñu koy gérer ñu noonu lañ ñu mel euh. waaw. mais aujourd'hui mhm. sëñ Mansour. Mhm. yow mi nekk acteur est-ce que sénégalais ñu ngi différencier sa rôle d'acteur mhm. ak sa personnalité. ah yow saa na da ngay rom dox gaa yi xool la ñaa la non yow sa rôle. sa rôle bi ngay joué secret de famille wala noo nga mel wala je ne te yow melo noonu c'est que rôle bi yaa ngi ko tegee ne la mbubb bu nga sol la quoi yére bu nga sol la soo ko solee ba pare da koy simi teg ko ne la wekk ko ba kër ñaan action nga jëlaat yére bi solaat. est-ce que ñoo di star bi. <laughs> non man moom wax dëgg yàlla ku ma xam moom wax dëgg yàlla effet de star moom dund ma parce que man man lu nekk ci man mooy maanaam lépp man ni ma xamee manu laa mel. man ñu ma xamee au début man noonu laa mel. parce que des fois dañu naan ñenn dañuy génn télé après voilà am ay nouvelles fréquentations. non changer numéro changer <laughs> numéro. <laughs> de sa koñ sax bu dee sa koñ ñu ko sax des fois rarement nga fay demee tout. bon <laughs> man moom fu ma yeewoo mooy sama koñ ba léegi foofu laa ne te yàlla xam ne sama koñ soo fa ñëwoon nii sa doo ma xàmme parce que man samay jàllale côté wu ak samay cëraat man nu ma mel noonu laa mel man juste comme ça man dama naturel. Mm. man du ma feeñ tale gars yi ñu ne non ki saa yi commencé nañ ko gis mi ngi yëg succès wala yooyu noonu man dund ma yooyu. alors léegi ci euh, série lay ñëwaat tuuti. Mhm. parce que bu ñu gisee ci gën a bëri. Mhm. bu ñuy bu ñuy joué. Mhm. partie yu gën a rafet Dakar la ñuy wane des fois yu rafet mm-hmm. des fois aussi ñu wane lieu yu rafet et mm-hmm. Mm-hmm. donc bu fekkee ni réalité sénégalaise quand même rek moom moo ñu tax a jóg est-ce que jotul tamit ñuy wane yenn aspect biir dëkk bi yi nga xamante ni du du lu rafet en fait wala du loo xamante ni richesse la wala yeneen waaw loolu moom wax dëgg yàlla moom gars yi ci xoolaat quoi bu baax a baax a baax war nañ dem ci yeneen dëkk yi du wane suñu suñu suñuy culture pour gars yi xam mais soo demee tout temps ngay dem ci benn milieu boo xam ne bu rafet la wala bu nice xam nga ko wane ñu bëri du ñu xam culture Sénégal quoi. Hmm. faa nga dem yenn liggéey yi ñoo xam soo xoolee boo xool sax gars yi ñu koy commencé def sax si série yi yenn yenn culture yi dem ci yeneen liggéey xam ni ñun lii moom la ñu am fii nii Sénégal mais soo demee du wane yenn liggéey yoo xam ne yu luxe la ñu bëri du ñu xam seen culture quoi. Hmm. waaw. léegi ci prank yi laay ñëwaat. <laughs> <laughs> lan moo nekk prank bi nga xamante ni moom moo la gën a tiital ci yi ngeen def yëpp. waaw prank bu ma gën a tiital <laughs> prank bu ma gën a tiital mooy bu miss bi. moom moo la gën a tiital. moom moo ëppoon jafe-jafe etu. Ah, waaw yéen miss mujjoon na leen tiital. waaw ci man man moom mu gënoon tiital quoi. mais bu jógee bi aussi am na ñoo xamante ni peut-être tiital ngeen leen ci parce que bi ngeen leen fekkee ñuy tourner série. Mhm. am na ci ñu nekkoon ci biir kër gi maa ngi dégg ci suuf am ku naan allahu akbar kooku moom. <laughs> te ñoo gisul <laughs> ci suuf de policiers yi di dugg si. di di di di wër ana kan moo bi kenn ki mu moom moom ba ba bi ñuy génn loola allahu akbar maanaam kooku moom tiit na moom te pourtant c'était par la cible mais tiit na tiit boo xam de est-ce que yéen a ngi jëlaale en compte ñooñu tamit. waaw mais foofu noonu c'est normal ñooñu ci parce que affaire bi daf leen bett. parce que ñoom si tournage lañu nekkoon xam nga ñun moom dañuy jig bi si yàgg rek ñu ne waa yéen parce que gars doon réclamer jógee jógee jógee mm-hmm. Mm-hmm. am benn waay boo xamante gis ni jógee moom mi ngi fii di tourner xam nga. Mm-hmm. vite fait mu wóor Mahfouz mi leen waa kaa leen jógee fii ñëw leen ngeen prendre ko ab ñun noonu lañuy fexe nag ba waaj na fexe ba jógee dem. lu jógee dem ñu dem installé wu comprendre ñëw di tourner mais foofu c'est normal gars yi parce que affaire bi dafa lañ bett quoi. waaw. donc euh, voilà mu nekk suñu invité bu tay bi di Serigne Mansour euh, Diagne mm-hmm. nekk acteur mais aussi euh, pranker je sais pas si se dit bu mag a mag fii ci Sénégal kii nag bëgg naa benn jour ngeen prank ma ko prank boo xam ne non kii moom non non non kii moom soxla na ko kii demande sociale la bu jee nekk ah, ah, ah. <laughs> demande sociale la bu jee nekk non yéen ñëpp laay prank bu mu nekk suba teel nag on a besoin de lui pour la matinale yéen ñëpp laay prank ak seen cameraman bi sax nga koy prank en tout cas tey ñu ngi lay bàyyi waaw maa ngi sant bu baax di kontaan ci invitation bi ngeen invité waaw fii moom wax dëgg yàlla moom xam naa moom sama kër la moom. parce que bis ni ki moom sama kër la fii mooy suñu label TV yàlla na gën a jëm ci kanam kanam kanam kanam xam nga maa ngi nuyu waa acteur social mooy acteurs yi maanaam dañoo ubbi benn dañoo tijji benn groupe boo xamante pour affaire de social la. bee passé ci weeru koor bi li ñu doon def mooy prisonnière bi mooy fële euh, rëbës mooy euh, te mu nekk Liberté 6 waaw ñu nekk camp pénal camp dem nañ fa xam nga bee passé mais ren tamit ñu ngi préparé waat yeneen yoo xamante ne cas ak effet de social ak yooyu noonu ñu koy préparé maa ngi nuyu waa groupe acteur social maa ngi nuyu ñëpp du nuyu ñoom Mahfouz ñoom Zé ñoom Prank Star du nuyu waale tamit euh, PDG Djibi Guèye waaye yes Dakar ñëpp maa leen di bëggee en même temps di nuyu waale tamit Mansour Ndour borom Marodi parce que nit ku baax la ko xam nga nit ku baax la maa ngi koy nuyu di nuyu waale mooy borom 109 maa ngi koy nuyu di am koo xamante dafa am sama benn xarit boo xamante ne daal di beeseer koo xamante ne ku bokk ci man mi hmm. Seyba maa ngi koy souhaité joyeux anniversaire dundal lu bari bari bari bari yow lépp loo bëgg sànnu yàlla na ko yàlla defal. amiin amiin donc euh, merci <laughs> beaucoup euh, Serigne Mansour Diagne xam naa nuyoo yi moom. waaw <laughs> suba du tax li sa bi jeex ma tënkal la ko rek yaa ngi nuyu ñëpp ñoo xam ne daal euh, ñu sa sa biir dund. waaw waaw waaw lay apporter des choses positives. parce que bi fa lay jaaree aussi ne très bon début de week-end képp koo xam ne c'est Asmi Label TV. Mm-hmm. on vous donne rendez-vous le lundi incha allah wala lundi férié la Aliou Ngé. <laughs> incha allah. Très eh bien, merci à vous. <laughs> Allez. oui di remercier suñu invité Serigne Mansour Diagne euh, di ko encouragé ci lancé bi mu nekk ñun mbokk yi ñoo mën a teew fi depuis lundi ba tey ñu leen di jox di daje lundi bu soobee suñu borom mhm. leen souhaiter un excellent week-end. merci Aliou merci Willy Sadio Diallo merci suñu invité tey di Serigne Mansour euh, Diagne di acteur xam naa dinañ gën a yaatalaataan ci yenn yi nga xamante ni rek bu ngi koy def ci euh, wàll bi et merci ci partage bi aussi j'espère que neexoon na téléspectateurs yi àndoon ak ñun euh, depuis huit heures ci suñu émission suñu matinale donc di leen remercier ñoom tamit voilà ci seetaan bi nga xam ne daal dañ koy seetaan suñu label TV donc dañ leen di jox dig daje lundi incha allah ci beneen matinale yeneen invité ak voilà yeneen thème d'ici là portez-vous très programme de Sunu Label TV bon week-end et très bon vendredi à lundi inchallah